tey ñu ngi fas yéene def suñu waxtaan jëmale ko ci li nga xam ne mooy wàllu néew kàttan ci wàllu sëy ñu koy wax faiblesse sexuelle ak li nga xam ne moo jëm ci wàllu hémorroïde ak siti ak li nga xam ne moo jëm ci wàllu infertilité féminin masculin nga xam ne moo jëm ci wàllu am doom ci wàllu jafe-jafe yi nga xam ne ku góor dana ko am ci wàllu am doom wala ku jigéen am ko ci wàllu am doom. d'accord comme comme ni nga ko waxee. C'est-à-dire, euh, nous allons parler aujourd'hui de tout ce qui est en rapport avec euh, l'infertilité, mhm. avec les problème sexuels, avec également les problèmes de sperme, avec euh, les problèmes d'érection, c'est-à-dire tout ce qui est sexuel, mmh. du côté féminin tout comme du côté masculin. Mmh. Ce sont des médicaments que vous fabriquez vous-même, mmh. ou bien ce sont des médicaments qui requièrent mhm. que vous demandiez d'autres choses pour mhm. faire le mélange. Alhamdulillah, médicaments, man maa koy defaral sama bopp médicament la yoo xam ne c'est des médicaments naturels maanaam garab la yoo xam ne garab yu naturel la garab yoo xam ne ci réew mi fii la saxee fii lañ ko daggee fii lañ ko defaree ba mu mat waaye nag sama liggéey yu nga xam ne nag man koy liggéey waxtu bu nekk damay bëgg muy jëm avancé di jëm ci kanam mu nekk liggéey boo xam ne da koy mucc ci ayib la yoo xam ne dañ koy def ci forme de ay thé ak ay tisane ay tisane la yoo xam ne taw ko bëggee jëfandikoo du am benn effet am benn loraange boo xam ne dana la ko jural ci dëppoo gu mu dëppoo ak jamono ak ni ñu ko moderni modernisation bi nga xam ne am na ko moderniser nañ ko ba mu ànd ak jamono loolu moom la ñuy liggéeyee ñu suñu ay garab. d'accord ce sont des médicaments traditionnels. Mm. ce sont des médicaments que vous faites vous-même d'après ce que vous avez dit. Mm. mais également vous avez dit également que euh, parfois. c'est normal avec la modernisation. Mmh. Étant donné que vous travaillez avec beaucoup de gens mmh. et que vous, vous, ne repoussez pas la médecine moderne, mm-hmm. vous faites des tisanes. Mm-hmm. des médicaments en forme de tisane sous forme de lipton. Mm-hmm. pour la prise mm-hmm. facile. également pour, euh, euh, pour, pour, pour, les médicaments que vous envoyez à l'extérieur et tout. L'impuissance sexuelle, ça se manifeste comment chez la personne, l'homme. Et quelles sont les causes de l'impuissance sexuelle maanaam euh, wàllum tële xam voilà très bien alhamdulilah waaw l'impuissance sexuelle y des y a des y a des façons am na ay xaaj ci wàllu impuissance sexuelle mm-hmm. mooy am na koo xam ne dafa new doole ci wàllu sëy maanaam buy sëy du am érection bu baax mm-hmm. am koo xam ne du yàgg ci sëy maa kooku dafa am problème mu yàggaay bi mooy dafa am éjaculation précoce dafay gaaw a pare am koo xam ne buy sëy du am appétit maanaam su sëyee tey mun na toog une semaine du sëyaat ñooyu yëpp ci wàllu xeeti néew doole la ci wàllu sëy. d'accord parmi les manifestations vous avez parlé de la force sexuelle. Ah. Il y a des gens qui n'ont pas l'érection dure. Parce que tout homme qui fait l'acte sexuel a besoin d'une bonne, bonne érection. Ah. Ça, c'est une première manifestation. Ah. L'autre, mm. vous avez également parlé de l'appétit sexuel. Mm. Il y a des hommes qui sont avec leur partenaire, mais qui ne ressentent pas l'envie de faire l'amour avec la femme. Ça aussi, c'est une autre forme. parler de l'éjaculation précoce. Mhm. Il y a des hommes qui ne peuvent pas tenir mhm. plus de 10 minutes, 15 minutes, 35 minutes mhm. d'acte sexuel. C'est-à-dire dans les premières minutes, l'homme éjacule, précoce. Précoce parce que ça vient du, point de vue très rapide. Voilà, donc euh, je vous continuer. Y a d'autres formes, y a d'autres manifestations de, ah. voilà. Hmm? Non, c'est ça. loolu mën nañ ko mën nañ ko hmm. ci wàllu wàllu sëy. Hmm. am na ñoo xam ne nag dañuy am élection totale du ñu am du ñu am benn dara dara. Mhm. du ñu yëg dara ci seen bopp. d' accord waaw d' accord ce que vous venez de dire ça résume tout en quelque sorte. Mhm. force sexuelle. Mhm. éjaculation précoce. manque d'appétit sexuel. Mmh. Ça résume tout. Mmh. Mais vous venez de dire également qu'il y a des hommes qui, qui n'ont aucune force, c'est-à-dire faiblesse totale. Total. Qu'est-ce qui, qu'est-ce, qu'est-ce qui cause jour au lendemain, hier, dimanche, j'ai fait l'amour avec ma femme. Aujourd'hui, lundi, subitement, tout arrête. Qu'est-ce qui cause cela Qu'est-ce qu qui loolu lu koy indi en général mooy ñi nga xam ne. Mm. dañuy am diabète. Mm. soo amee diabète mu yàgg ci sa yaram. bu yàggee day indi problème boobu. am ñoo xam ne dañuy am problème stress dañuy am fatiguement général tamit dana ko def. Mm. am na ñoo xam ne dañuy am ndoxu siti mooy psoriasis. am na ñoo xam ne dañuy am hémorroïde interne soit hémorroïde externe. yooyu dina def dina def cause mm-hmm. am na ñoo xam ne seen protéine euh, problème. mën a nekk ñi nga euh, ñi nga xam ne du ñu toog nga xam ne dañuy tourner tout le temps tout le temps dañuy dem nga xam ne seen xel day génn ci sëy mm-hmm. yooyu itam dana indi problème boobu. d'accord si si j'oublie vous me rafraîchissez la mémoire mm-hmm. d'abord vous avez parlé du diabète. Mm-hmm. donc vous avez dit que le diabétique a automatiquement ou bien. presque quatre-vingt-quinze pour cent des diabétiques ont un problème sexuel. ça vous l'avez évoqué en premier lieu. Le psoriasis, c'est une maladie qui existe chez toutes les personnes. Vous avez également parlé des hémorroïdes. Euh, rafraîchissez-moi la mémoire. Vous, avez également parlé du stress. les personnes, voilà, fatiguement général, les personnes stressées, mhm. les personnes qui sont trop stressées, qui ont beaucoup de problèmes, surtout vous les hommes, les mhm. problèmes de dépenses, mhm. les problèmes d'argent, les problèmes de maman et tout, de femmes. Donc,

mooy yaram bi noppaleku gu mu noppaleku. Mhm. moo waral côté érection bi nga koy am fajar suba teel. ça c'est vrai ça c'est une illustration à à pour nos amis francophones. Mhm. une preuve. Mhm. à la personne qui regarde que le fatiguement général est une cause première des problèmes sexuels. il a dit Si vous êtes trop fatigué mm. et que vous vous couchez, vous allez au lit mm. tout le matin, mm. c'est-à-dire tout votre corps s'est reposé tout au long de la nuit. Donc automatiquement, tout le matin, vous avez l'érection. Nous tous, nous l'avons remarqué. Tous les hommes. homme, tous ah. les hommes, le matin, vers 6h, 7h, même 5h du matin, en tout cas, votre premier éveil, quand vous ouvrez les vous remarquez que vous avez une érection. Ça, c'est am nañ ci ay ci ay traitement yu efficace traitement yu gaaw traitement yu fiable yoo xam ne mm-hmm. moom daanaka mun naa wax ne bokk na si sama ay meilleur euh, médica man naa bokk na ci meilleur médicament yi ma am yi nga xam ne mm-hmm. su ma ci jot dimbalee nit mu wér ah vous avez des des des solutions sur les problèmes sexuels mm-hmm. c'est-à-dire des traitements naturels cent pour cent traditionnels comme, comme son nom l'indique, vous êtes un médecin tradi, tradipraticien. Mm Donc ces traitements sont à base de plantes et d'autres secrets que mm -hmm. vous mm-hmm. n'allez pas livrer d'après ce que vous venez de dire. Les hémorroïdes. Mm-hmm. Parlez-nous des hémorroïdes. Quelles sont les causes des hémorroïdes avant de parler des manifestations Parlez-nous parlez d'abord des causes. Alhamdulillah, waaw xam nga hémorroïde dafa nekk feebar boo xam ne euh, feebar la ñuy wax dilatation la boo xam ne ci wàllu veine dafa am veine boo xam ne ci wàllu anus bu amee bu day am ndox bu muy mm. sol mm. mais en général ñi nga xam ne ñoom ñooy am hémorroïde mm. mooy ñi nga xam ne dañuy lekk pat bu bari ak ñi sonn wala ñu taxaw taxawaay bu yàgg ak ñi nga xam ne dañuy toog toogaay ak ñi nga xam ne dañu am ndoxu siti ndox siti bu yàgg boo xam ne fajuñu ko mm-hmm. loolu dana def ay cause dana indi ay cause pour hémorroïde hémorroïde dafa nekk loo xam ne euh, en général ñu koy am mm-hmm. mooy comme ni ma expliqué rek mooy ñi am taxaw euh, euh, coono Mm-hmm. daf dina ko def mm-hmm. euh, lekk ay pat yu bëri mm-hmm. dina ko def euh, ak li nga xam ne moom mooy wàllu fatiguement général d'accord yooyu dina indi dina indi euh, kii dina indi hémorroïde d'accord vous ah. avez dit que c'est une manifestation de dilatation veineuse ah. donc il se peut que cette maladie soit causée par le fait de rester debout pendant une très longue période ou bien de rester assis pendant une très longue période ou bien même ceux qui mangent beaucoup de pâtes. Uh Bon, les pâtes, pas besoin d'énumérer, pas besoin de citer les pâtes, nous mmh. connaissons tous les pâtes. Mmh. Mais également la fatigue, la fatigue générale, mmh. ça peut également causer les hémorroïdes. Mm. Mais nous parlons maintenant des hémorroïdes internes et des hémorroïdes externes. Pourquoi interne et externe Parce que hémorroïde am na dafa am ñetti dégré mm. Premier degré bi interne ak deuxième degré bi yëpp interne lay nekk mooy bu fekkee dafa nekk hémorroïde interne mm. nekk ci biir. mais développé gul amagul yenn doole yi pour nekk ci biti mm-hmm. loolu moom la ñuy wax interne ak externe léegi su fekkee nag dafa yàgg ci biir te fajuloo ko mu dem ba nga xam ne màgg na léegi su màggee bu génnee première euh, deuxième degré bi mooy mm-hmm. daf lay wan ne nag dalay ano dalay def ay signe da ngay gis mu génn duggaat mm-hmm. moom day mën a boppam moom dina génn sooy demee sel euh, surtout bu sel yi degré wow boobaa mën na ko pousser mu génn anus bi génn Euh, léegi su fekkee ne dem nga ci wàllu pare. Hmm. moom day delluwaatal boppam. léegi bu yeggee troisième degré bi nag bu boobaa moom day génn du dootu mun dugaat. d'accord moo tax souvent ñu mel noonu lañ leen defal opération parce que fu ñu toog seen tubéy day tooy wala muy métti te du arrêté. d'accord loolu moom mooy problème kii moom mooy moom mooy problème moom loolu moo tax ñu wax interne. Hmm. ak externe léegi nag su xasee génn te nangootu a duggaat. Hmm. laa s boobaa dañoo externe ndax léegi mu ngi ci jeex na waaw mais même hémorroïde bi la nag. hémorroïde interne bi ak hémorroïde externe bi. mu ngi dépendre ci évolution hémorroïde bi ak degré yi. Mhm. premier degré bi ak deuxième degré bi interne la. troisième degré bi moom mooy externe bi. Mhm. d' accord pendant parmi ces hémorroïdes internes externes il y a trois degrés. Mhm. les deux premiers degrés. sont considérés comme étant internes. parce que à première en premier lieu. bon ça reste. à l'intérieur, ça ne sort pas. Mm. Mm. La maladie vient de débuter. Mm. On ressent des ballottements et tout, des bourdonnements au niveau du ventre et tout. Mais là, c'est toujours interne. interne. Parfois, quand vous allez au sel, si ça commence à être un peu dur et que vous avez la constipation, ça sort, mais ça peut rentrer après les selles. Là, on considère toujours que les hémorroïdes sont toujours internes. Mais au troisième degré, maintenant, ça devient externe subitement est ça ne peut plus rentrer. N'est-il pas possible de faire rentrer cela, de guérir la personne qui souffre de, de du troisième degré mm. l'hémorroïde externe mm -hmm. sans même faire recours à l'opération. C'est possible. Oui, s'il y a quelqu'un qui vient me dire qu'il mhm. mm -hmm. est programmé par, par l'opération, yeah. moi j'annule le, le, le, le, programme. D'accord. Tous, tous les. Tous les qui, qui peut commenter nous Quand on a gagné, on a un hémorroïde externe. Mhm. Bah, dans le programme pour opérer, on a annulé cette opération. Parce que man médicament, Et c'est le troisième degré. Troisième degré. D'accord. Le médicament, je ba nga xam ne efficacité efficacité am baaxaay baaxaayi garab bi permettre na ma ku ñu programme opération pour hémorroïde interne wala externe mm. dama koy annuler parce que bu naanee garab bi dafay dañ d'accord d'accord bon ce qu'il a dit en wolof il a dit en français automatiquement vous waaw waaw même bu fekkee ne hémorroïde bi dafa la dafa indiwaale tamit dafa la indi dafa la indiwaale problème mu euh, gastri wala mu indiwaale la problème mu ballonnement de ventre. Mhm. sa biir bi di am ngelaw. Mhm. wala indiwaale la problème bruit sa biir bi di am. di bourdonnement bourdonnement sa biir euh, bi di yuuxu. Mhm. yëpp garab bi en même dafay fajaale yooyu. d' accord il il vient de dire que y' a y' a certains de ces patients ils ils viennent ils lui programmé pour une chirurgie parce que j'ai des hémorroïdes externes. lui il annule automatiquement l'opération la chirurgie, parce que ces médicaments peuvent soigner cela sans même faire recours à la chirurgie. Quels sont les conseils que vous donnez à tout le monde Boire, qui souffrent, ceux qui ne souffrent pas. Boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau. Ah, ah, boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau est le premier conseil pour tout le monde. Deuxième, moi, lek fruits D'accord, il faut également manger beaucoup de fruits. Lek beaucoup de fruits En même temps, di nelaw nelaw di di reposer di nelaw. Hmm. nelaw fexe di nelaw. Hmm. di ak lu niin d'accord ma maanaam lu lépp lu niin ak lépp loo xam ne dafa am pat mm-hmm. ak manqué ndox mm-hmm. ak di naan ndox mu sedd mm-hmm. yooyu nañ koy éviter loolu boo bëggee am même bu fekkee da nga nekk euh, moment de crise ci hémorroïde bi mu ngi sonal ba mënatuloo am jàmm amaguloo médicament loolu soo ko suivre euh, euh, conseil yooyu ci côté régime bi soo ko suivre dangay am jàmm le temps nga am kii d'accord fekkee ne nag mhm. na la musal ci d'accord en plus de boire beaucoup d'eau et de manger beaucoup de il a recommandé aux personnes que ce soit aux patients ou bien à ceux qui n'en souffrent pas de se reposer pleinement. il faut également boire beaucoup d'eau. et voilà éviter éviter de manger trop gras. Uh-huh. de manger beaucoup de pâtes. nous allons parler du diabète. Mm-hmm. le diabète. feebar la boo xam ne mm-hmm. mën nga ko ñëwaale mm-hmm. mais mun na bañ a parce que mm-hmm. c'est une maladie euh, euh, héréditaire c'est héréditaire donc malade bu feebar la bu ñuy judduwaale mais juddu rek mu feeñ loolu du am mais mën nga la mën na la dal à age âge mën na la dal fekk yaa ngi am deux ans mën na la dal fekk yaa ngi am trois ans mais il faut que nga lekk naan pour taux yi pour ñu mën a wax na tey jabati d'accord pour mu pour nga nekk un diabétique il faut que nga lekk luy tax sa taux de glycémie yéeg nga am hyperglycémie ñu mën a xam ne yow tu es diabétique d'accord mais pour nga juddu rek nekk diabétique loolu c'est pas c'est impossible parce que pour nga nekk un diabétique pour il faut que sa sukar yéeg wala sa pancréas bañ a dox hmm. pour nga xam tu es diabétique mais nag ba bas ma mën nga ko am d'accord mais souvent ñi ngi gis ñu am ay diabète yëpp hmm. mooy ñi nga xam ne yàlla dafa dogal ñu nekk ay mag nga xam ne utilisé nañ sukkar su bari mhm. dem nañ ba seen pancréas sonn na mhm. insuline bi production bi doyatul mhm. laa ñooñu ñooñu am souvent ñoom ñooy gën a am ay euh, problème diabète c'est-à-dire même si c'est une maladie héréditaire même si on au monde avec le diabète parler de diabète tant que ça ne s'est pas manifesté. C'est-à-dire, mm-hmm. Mm-hmm. tant qu'on n'a pas le taux de glycémie mm-hmm. qui, qui, qui, qui, peut faire dire qu'on a le diabète, ou bien que votre pancréas ne marche pas, ou bien que vous avez des problèmes d'insuline. Voilà, euh, vous êtes dans les maladies. Donc, euh, les manifestations, euh, sans même aller faire un diagnostic, sans même aller chez le médecin, sans même être touché par un appareil, comment peut-on rester chez lui et savoir qu'on bon lii loolu lu koy indi mooy euh, mooy nga toog ngay gis sa yaram muy jeex ngay jeex ba pare ngay saw lu bari di mar ngay naan du doy ngay lekk doo suur soo lekkee ba suur léegi balaa nga am deux heures de nga xiif bay bëgg dee nga naan ba mandi balaa nga am une heure de temps nga mar bay bëgg a dee ngay saw te doo arrêté ngay dem di saw di dem di ñëw mhm. sa yaram bi di simmeeku di jeex di wàcc loolu ay signe la yoo xam ne ci ay symptômes la. Mm. yoo xam ne automatiquement képp ku ko gis sa yaram. Mm. xamal ne boo demee def. Euh, diagnostic diagnostic mm. nga def analyse automatiquement dinañ confirmer que ne tu es diabétique. d'accord donc il a dit que si si vous voulez savoir que vous avez le diabète bon remarquez vos habitudes ceux qui restent chez eux et qu'ils ont une perte de poids subite je dis perte de poids subite parce que on peut perdre du poids pour autant souffrir du diabète. Mais perte de poids subite est que vous avez toujours l'appétit. Vous mangez, deux heures de temps après, vous avez faim. Vous buvez beaucoup d'eau sans être, sans, sans, satisfait. quoi. Donc, vous buvez une heure temps après, vous avez soif. Là, il dit que ce sont des signes. Encore une fois, ce sont des signes du diabète. Dans la plupart des cas, si vous allez et que la fatigue passagère chaque fois vous avez de la fatigue donc voilà donc donc vous avez de la fatigue tout le temps il dit que dans la plupart des cas si vous avez ces signes là chez vous et que vous allez faire une analyse il est fort probable qu'on vous diagnostique vraiment une maladie de diabète voilà donc type 1 type 2 est-ce que vous soignez tous les deux tous, bon, tous les deux en général les cas que je soigne mooy diabète yi nga xam ne man dama leen di faj mooy les type 2 mooy ñi nga xam ne. d'habitude vous soignez les type 2. les type 2 ñi nga xam ne dañuy am trace bi. Mm-hmm. nga xam ne dañuy soog a commencé am diabète. Mm-hmm. fekk seen diabète bi nekkagul type 1. Mm-hmm. pancréas bi dafa commencé faible. fu insuline bi doyatul. li muy fournir si insuline doyatul. loolu bu boobaa type 1 bi la type 2 bi la. kooku bu ñëwee su ma ko dimbalee pancréas bi dina amaat force pour mën a insuline fournir waat insuline bu doy. kooku moom en général dañuy gis ñooñu dañuy wér. mais ñi nga xam ne dañuy am problème mu type de type 1 bi. ñooñu en général seen pancréas bi day taxaw dootu amati dara. loolu ñu mën a am benn insuline bu doy. laa buñ ñu naanee garab bi bu fekkee am na ay conséquences waa nga jeex takk. wala saw bu bëri boobu moo doon wax noonu. type un bi garab bi da koy arrêté. wala sa vision bët bi soo bëti gisatul wala nga am problème érection yooyu garab yooyu mën naa ko faj après ki nga xam ne dafa am type 1 mhm. fekkee na wàcci su dee problème érection na dañ su dee problème vision mën bu fekkee ne dafa jeex mën nañ mën ko dindi bu dee yaram bi suukar si dafa bëri ci biir yaram bi tamit excès de sucre dafa am excès type 2 vous soignez vous soignez le diabète de type 2. Mmh. Hmm? Totalement, totalement. Il soigne le diabète de type 2, totalement. Mmh. Mais en ce qui concerne le diabète de type 1, mm. en grosso modo, mm. voilà, traduit pour les francophones qui comprennent, bon, rapidement, mm. ceux qui souffrent de diabète de type, type 1, il dit que il peut vous aider à soigner vos problèmes de vue, vos problèmes sexuels, vos problèmes de perte de poids, et vous aider sur les signes flagrants. Mm-hmm. Mais il ne guérit pas totalement la diabète de type 1, que ça soit clair. Il peut vous aider pour les manifestations. Voilà, si vous avez une, voilà. voilà, si vous avez une plaie, mm-hmm. il peut vous aider à la soigner. Mm-hmm. Hmm? Si vous prenez ces médicaments, ça soigne la plaie. Mais voilà. Mm, comme résultat, résultat la boo xam ne mën naa ko présenter àddina bi yëpp donc en gros donc vous êtes satisfait mm. de votre traitement de type 1 voilà parce que ak type 2 yëpp type de donc vous êtes satisfait vous vous pouvez vous en glorifier mm. parce que même ce n'est pas facile pour la médecine moderne mm. même si nous les respectons beaucoup ce n'est pas facile pour la médecine moderne de soigner le, diabète pas seulement type 1 type 2 mais tout court voilà donc euh, il a d'autres maladies que vous voulez nous parler aujourd'hui comme infertilité masculin et féminin. L'infertilité, c'est différent des, des, des c'est différent des, des, problèmes Parce que l'infertilité, c'est le fait d'avoir un bébé. Voilà, c'est le fait d'avoir voilà. un enfant. Il y problème, un problème érection, mais que la personne peut être puissante sexuellement, oui, mais, mais, ne peut pas avoir d'enfant. D'enfant, voilà. Mm. Parce que souvent, mm. problème infertilité, il y a des gens qui sont traités. Que ça soit, moi, je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme, parce que moom dafa am problème ci wàllu manioom wala ci ndoxam ngeen baal ma ci mhm. am xam ne dafa am am mhm. ci wàllu yaramam ci wàllu mbaax ngi muy gis. Mhm. ak ci wàllu état de santé bu mënti doon. yàlla dogal nañu mën nañu traité euh, li nga xam ne moom mooy euh, wàllu infertilité. d'accord mën nañoo wax nag ñàkk am doom bi. lan moo koy sabab ak yooyu yëpp yàlla defal na tuuti da xam nañ ko te am nañ garab bi. d'accord donc en cas si vous souffrez également de de l'infertilité. que ça soit du côté féminin ou bien du côté masculin. Il dit qu'il peut vous soigner. C'est différent des problèmes sexuels. C'est vrai, je suis d'accord. Un homme peut avoir une érection normale, mais un homme peut également souffrir de problèmes de sperme pour ne pas avoir d'enfant. Même chez la femme, mhm. la femme peut avoir le plaisir sexuel, la mhm. femme peut, peut faire l'amour euh, facilement, mhm. avec tout le plaisir du monde, mais elle peut aussi avoir des problèmes de règles, ou bien des problèmes bon, qui, sont, euh, qui, qui, lien avec euh, ses organes. Mm-hmm. Donc, euh, dans ces cas de figure-là, bon, on peut dire que la femme souffre d'infertilité, mm-hmm. tout comme euh, du, côté de l'homme. Mm-hmm. Donc, il peut vous aider. Si vous venez, il vous parle des causes, il vous parle de ce qui vous a causé cela, il vous soigne et vous pouvez avoir un enfant. Est-ce que vous pouvez lui donner une durée li ko dal ci foofu laay sukkandiku pour mun ko jox durée pour waxtu bi muy wér. durée de guérison bi nga wax noonu. Mm. waxtu bi muy wér. à condition que vous connaissez la la la cause. de l'infertilité voilà su xamee problème bi. Mm. dinaa ko mën a jox parce que jigéen ñi ñi ma fajagum man. Mm. ci wàllu am doom. ñu bari dañoo am ay dañoo uti ay feebar. am na ci koo xam ne dañ koo liggéey mystiquement dañ koo téye tëj ko ne du moom du am doom. kooku man dama koy faj. Mm-hmm. ki nga xam ne rab moo ko téye. Mm-hmm. am na ak rabam ay doom mais mu munul am ak jëkkëram doom. Mm-hmm. kooku man dama koy faj. yaa ngi dégg ki nga xam ne tamit dafa am problème mu euh, wàllu wàllu kyste am na ñoo xam ne am ay myome yu bëri myome yi mën na leen empêcher pour ñu am doom am na ñoo xam ne dañu am euh, li ñuy wax fibrome. fibrome bi mën na leen a ba du ñu am doom am na ñoo xam ne dañu am problème trompe seen trompe day day busi ñooñu problème boobu dama leen faj am na ci ay cas xam ne si ñi nga xam ne. li ma la wax nii yëpp ab laa ci ay cas yoo xam ne benn mu ci nekk di faj naa la. voilà vous allez rémunérer. Uh-huh. à condition que vous connaissez la cause. Uh-huh. vous pouvez donner une durée. vous uh-huh. avez parlé de trompe bouchée. ak euh, wàllu kyste fibrome mm, fibrome. ak perturbation ci côté règle. perturbation de menstruation. waaw ak li nga xam ne mooy wàllu euh, euh, jinne rab. voilà côté mystique. waaw côté hmm? mystique am na ñoo xam ne dañ leen di jàpp mystiquement ndax dañuy sëy ci kër. Hmm. ñu kooku du leen ña fay kale ñooñu du la euh, euh, kay sëy si kër gi du leen neex. d' ñu duñ bëgg kooku am ndono ci kër gi. ñu ñu bëgg yàq ko. d' accord dañ koy tëj mystiquement ñooñu man dama leen damay xam secret ba am na ñoo xam ne euh, ñetti ñetti règle. 3 mm-hmm. mois mënuñu def mun 3 mois fekkee seen jëkkër bi nga mm-hmm. mois te les questions et tout. il a parlé côté côté côté. ça mm-hmm. qui sont. dans des maisons hein, qui, qui, épousent des hommes et malheureusement chez elles, elles ont des ennemis. Hein? Hmm? Elles sont atteintes mystiquement pour ne pas avoir d'enfants. Donc, oh, si vous venez le voir, il vous dit la cause et il vous garantit que si votre époux n'a pas de problème sexuel, vous ne pouvez passer trois mois sans tomber enceinte. Mmh. Mmh. Voilà, ce sont les paroles du chef. Ce ne hmm. sont pas mes paroles, hmm. ce sont les paroles du chef. Vous ne pouvez pas rester trois mois sans tombée enceinte. Hmm. Hmm? voilà voilà bu dee ku côté ku góor la ku góor ki dafa am ay mbir yoo xam ne mën nañ koo takk. Hmm. mën nañ koo takk xala. mën nañ fa waa wala côté sexuel la. mais mën nañ koo tëj ci wàllu doom. tamit mën naa am problème mobilité. mën na am problème forme. ci côté sperme bi wala côté spermatozoïde bi. mën am problème forme. mën naa am problème tamit ak asthénospermie mm. wala mu am tératospermie mm. wala mu am azoospermie mm. yooyu yëpp yàlla dogal na dama koy faj ko ki nga xam ne dafa am problème varicocèle kooku su ñëwee moom très ko koo xam ne da nga am varicocèle pour ñu war la opérer man boo ñëwee opération bi dañ koy annuler dama lay fajal sa varicocèle sans problème vous daal vous êtes contre l'opération vous êtes de toute façon il dit que <clears throat> azospermie tératozos téra. tératozospermie. tératozospermie azospermie. aspermie voilà vous l'avez dit je ne peux pas le dire. Ah. donc euh, varicocèle. varicocèle azospermie. azospermie asténospermie. vous l'avez dit tératozospermie. voilà tout je ne peux pas le prononcer je ne peux pas le prononcer <laughs> donc lui il a dit que si votre problème de varicocèle est très avancé et que vous venez le voir. Mhm. Donc, pas besoin de faire une chirurgie, mmh. pas besoin de faire recours à l'opération. Il mm. peut vous soigner mm. et que vous pouvez avoir un enfant mm. chez l'homme également. Hmm? Voilà. Je ah, crois que. ñi nga xam ne ñoo am varicocèle. varicocèle oui oui oui varicocèle moom euh, yee yee hmm. yi ma wax noonu yooyu du am opération yooyu hmm. traitement lay am. mais varicocèle seul la ñuy opéré parce que varicocèle ci testicule yi lay nekk. mooy di euh, veine la. Mm-hmm. boo xam ne dafay dilaté wu. dilatation de veine boobu. Mm-hmm. moom mooy sol ay euh, mooy sol euh, feebar bi ñuy wax varicocèle. varicocèle loolu moom mooy indi problème production bi nga xam ne. Mm-hmm. xam nga testicule yi ñooy def production mooy def production. sperme oui c'est vrai. testicule yi la. léegi bu amee production boobu. c'est vrai c'est-à-dire il y <clears throat> un nerf qui se trouve au niveau des t et qui donne l'énergie normale aux testicules pour former les spermes. Mmh. Et s'il y a une dilatation mm. au niveau de ce nerf-là, mm. donc ça peut causer vraiment une faiblesse ou bien mm. même un mouvement anomalie, pour, le, pour, que, pour que les testicules soient capables mm. de faire une formation normale des, des, des, des du sperme mm. et là on parle de varicocèle Donc la il dit que vous n'avez pas besoin parce que chez la médecine moderne, ils font une opération, mm. ils remettent le nerf, bon, ils essaient de remettre le nerf normalement, mm. mais lui, il peut vous soigner du point de vue traditionnel mm. sans faire recours à l'opération. C'est ce qu'il a expliqué côté varicocèle. voilà. voilà. Nous n'allons pas quitter ce point. un peu masculin parce que je veux qu'on parle de la prostate. C'est pourquoi je veux de la prostate, il a mm-hmm. quelqu'un qui a un problème qui a un problème sur le sur le sur le sperme. am am na ci ñoo xam ne. dañuy am jafe-jafe ci wàllu sperme. Mm-hmm. ñii dañuy am ay dix millions. Mm-hmm. ñii dañuy am ay million. Mm-hmm. ñii dañuy am ay euh, vingt mille dix huit millions. problème de volume quoi problème de volume. ñooñu nag suñu ñëwee mën naa leen yëkkati yëkkati seen volume ñu am ay cent millions. ah d'accord mën am cent millions wala vingt millions wala trente millions. mais pour nga am doom il faut minimum nga am vingt millions. ñooñu noonu yëpp. ci am problème c'est vrai que y a des hommes qui n'éjaculent pas beaucoup de choses. Euh. donc il euh, y a des hommes qui ont des problèmes d'éjaculation. Ils peuvent avoir leur plaisir, ils peuvent avoir une érection normale, mais ils, remarquent mm. leur éjaculation a un tout petit volume. Mm. Ça, c'est un problème de volume. Mm. Donc, il dit que si vous leur rendez visite, il peut vous aider à obtenir euh, un volume normal, parce que il faut éjaculer un très grand volume pour espérer une Voilà, donc si vous éjaculez euh, un tout petit volume, mm. il se peut que tous les spermatozoïdes meurent en cours de route. Mm, voilà. Ça, c'est un problème de mobilité. Voilà, problème de mobilité. loolu sa problème mobilité mobilité la. mobilité la nga xam ne bu ñu amee bu ñu bu ñu bu ñu éjaculé. Mm-hmm. Euh, spermatozoïde bi bu déparé balaa muy yegg ci euh, ci kii bi. ci euh, les spermatozoïdes meurent en cours de route. en cours de route balaa ñuy. yegg ci kii ndaw si. waaw utérus. utérus bi. Mhm. dañuy dee. loolu mobilité la. am na ci ñoo xam ne problème forme la maanaam seen bindin. Mhm. du baax am na ñoo xam ne seen problème problème dañuy am problème maladie spermatozoïde bi day am maladie. Mhm. ci bopp bi soit ci genn gi. mu am ci ñoo xam ne bu ñu am bu ñu éjaculé seen maladie seen spermatozoïde bi. du am genn day tagg. yooyu problème forme la. d'accord yooyu yëpp ci problème forme la bokk. oui problème de forme yëpp dama koy dama koy traité. voilà les problèmes de forme les problèmes de mobilité les problèmes de volume. toutes les façons si vous avez un problème d'infertilité. Mhm. venez voir le chef. ou bien appelez le tout cas ak cause bu lu nekk. voilà quelque puisse la cause avant que ñoom mhm. rendre visite. Mhm. maintenant on parle plus du docteur. on parle plus du tradipraticien mais on parle du marabout hmm? de la richesse. côté de la protection côté familial entreprise projet problème de papier tout ce qui est mystique hmm, les besoins professionnels et de réussite quelles sont les solutions que vous avez quels sont les secrets que vous avez pour ceux qui ont les problèmes de réussite les problèmes de voyage les problèmes d'argent et tout waaw alhamdulilah euh, li nga laaj am na solo parce que Afrique li am ci ay valeurs xamuñu ko parce que man ñii rek di wax ak yow li ma la wax léegi ci wàllu li nga xam ne moo jom ci wàllu. santé santé. Mm-hmm. nekk loo xam ne dañ koy def ci wàllu ay traitement mm-hmm. personnage boobu rek ñaata ñaata élément la sol benn personnage boobu mm-hmm. parce que kooku personnage boobu rek nekk na ko xam ne maîtriser na problème infertilité Mm-hmm. loolu soo demee chez les médecins kenn moo koy nekk mm-hmm. benn spécial la mm-hmm. ku kuy spécialisé wu la ci loolu yàlla may na ko personnage boobu maîtriser na wàllu jëm ci wàllu érection ak cause may na ko ci wàllu jabet may na ko ci ophtalmologie wala may na ko ci wàllu hémorroïde neurologie neurologie te même personnage boobu moom yàlla may na ko ci ay domaines yu bëri en même temps mu may mu nekkaat encore un marabout boo xam ne ci wàllu mystique facette yi nga xam ne nekk na am na ko yooyu yëpp buñ boolee personnage yooyu donc benn nit bi ñaata nit la doon te yëpp buñ waxee dëgg nekkul ay fen lépp dëgg la te lenn lu ci nekk satisfaire nañ ci ay nit donc Afrique il est temps que mu teg taabal ci taabal ji lim am maanaam mu génnee ay doomam liñ am pour ñu xam ne valeur yi ne Afrique nekkul fan d'accord il n'a pas encore répondu à ma question mais il a di quelque chose de très important et je tiens à le traduire pour nos amis francophones il a dit que le chef que vous voyez le médecin traditionnel que vous voyez d'après tout ce qu'il dit. Et tout ce qu'il a dit, c'est de la vérité. Ce ne sont pas des mensonges. Il a beaucoup de spécialisations. Il est devenu le neurologue. Il est devenu l'ophtalmo. Il est devenu la personne qui soigne le diabète. Il est devenu la personne qui soigne les problèmes sexuels. Il est devenu la personne qui soigne d'autres maladies. Donc, infertilité. infertilité et tout. Toutes ces facettes-là que il rend grâce à Dieu en disant alhamdulillah qu'il a le médecin traditionnel il a dit que ce sont des valeurs qui n'existent qu'en Afrique maintenant il est grand temps que l'Africain sorte toutes ces réussites là toutes ces toutes ces belles facettes là hein, cette richesse là que l'Afrique a qui n'est possible qu'en Afrique hein, toutes ces spécialisations là qui sont réunies en une seule personne et que ça soit vrai ça ne soit pas des mensonges ça ne soit pas mais que ça soit vrai. Il a introduit en disant qu'il est grand temps que ceux qui ont ce pouvoir-là, ceux qui ont ces facultés-là, sortent cela et le mettent sur la table et soigner les gens, aider les gens. Avant de venir à ma réponse maintenant, quelles sont les solutions, quelles sont les propositions, les secrets que vous avez du côté mystique loolu nga laaj noonu. Mm-hmm. muy wàllu li nga xam ne luñ doon la. Mm-hmm. ci suñu ay waajur mm-hmm. ak li nga xam ne ñun ci suñu xam-xami bopp yàlla moo ñu ko xamal mm-hmm. ak li nga xam ne dañ koo toxal ci suñu ay dawle mm-hmm. loolu bari na ci wàll li nga xam ne euh, mooy li ñu xam d'abord am na ay sangat yoo xam ne dañ koy joxe am na tamit jaaro boo xam ne dañ koy liggéey boo xam ne baax na pour wàllu alal pour nga am alal. donc vous rémunérez après on parle des importances vous avez parlé des bains. am na ay ja am na sangat. boo xam dañ koy liggéey. voilà il a parlé des bains. boo xam ne pour dindi liggéey pour may liggéey pour utu xaalis pour am alal yooyu am na. Mhm. am na jaar boo xam ne dañ koy dañ koy defar. voilà il a parlé également de la bague. mystique mystique ak mhm. boo xam ne ceinture la boo. xam ne bon ça doit être ces bagues que vous portez là. voilà <laughs> mhm. benn ak kii boo xam ne dañ koy liggéey pour. Euh, ak ndomb boo xam ne dañ koy defar. il a également parlé d'une ceinture. waaw mystique voilà ak cuuraay en boo xam ne cuuraay yoo xam ne dañ ko liggéey. voilà il parle également boo xam ne de l'encens. Mm-hmm. Hmm. donc il préfère parler en dernier lieu parce que c'est c'est c'est un encens vraiment très très important maintenant revenons aux bains mm-hmm. les bains on va développer maintenant mm-hmm. les bains mystiques voilà euh, c'est pourquoi d'abord les bains c'est des choses euh, kii la sangat la yoo xam ne. Mhm. su fekkee na nit ki dafa am cat mauvaise œil mauvaise langue. mauvaise œil mhm. ak mauvaise foi maanaam liggéey boo xam ne nga liggéey. Mhm. wala ñu catu la. d'accord les bains son sont la pour soigner ceux qui souffrent bon. de la mauvaise langue, ah. le mauvais œil, ah. la poisse mm-hmm. et ceux qui sont fermés en quelque sorte. qui ne peuvent rien avoir du tout. voilà ak koo xam ne da doon am dara. Mm-hmm. am alal ba yàgg alal bi yàqu te xamul lan moo ko waral. et ceux qui ont des entreprises et que du jour au lendemain ils constatent que leur travail est en train de s'effondrer. Mm-hmm. ils sont en train de tout perdre subitement sans aucune raison. Mm. loolu euh, sangati da koy dindi. d'accord si vous si, bon, vous allez encore retrouver votre richesse, mm. vous allez encore retrouver le contrôle de votre entreprise, en, tout cas de votre commerce, quelle que puisse être l'entreprise, mm. et vous allez également retrouver votre chance. À quoi xamné yalla dafa def mom bam juddo ba légui musul am dara lu ne jéem na ko waaye mënul génn ci fi mu nekk endroit bi mu nekk. loolu sangati dina la dimbale ba yow nga bokk ñi nga xam ne yàlla ñëpp dinañ seede mm. yàlla may na la y a des jeunes qui sortent de l'université de l'école qui ont Ils cherchent partout, mais ils ne peuvent rien avoir. Et ça depuis tout petit. Il dit que si vous prenez ces bains, vous allez remarquer que vous allez maintenant avoir une ouverture petit à petit. Mmh. Vous allez avoir un boulot, vous allez avoir des connaissances, il des gens qui vous contactent. Mmh? Donc là, ce sont les bains qui causent cela, qui vous donnent cette chance-là. Hmm, voilà. D'accord, euh, sangat bi dina ko def sangat bi dina la dimbali si li la dimbalal nit ñi bëgg la mm-hmm. am na ci yoo xam ne pour bayre la nit ñi di la bëgg foo nekk nit ñi dañ lay bëgg bu jéggi dayoo mm-hmm. te it yàlla dafa ekkati siiwal sa tur fu nekk ci àddina bi nit ñi dinañ la xam loolu sama sanga bi na ko def d'accord pour les bains toujours il a des bains pour vous faire connaître il des gens qui passent inaperçus mm-hmm. vous êtes euh, dans une compagnie vous travaillez dans des entreprises et personne ne vous remarque le directeur ne connaît Donc personne ne vous connaît. Il dit que si vous prenez euh, son bain, vous êtes connu de partout du jour au lendemain. Mmh. Veuillez recadrer bien s'il vous plaît. Mm. Donc vous êtes connu de partout. Mm. Tout le monde vous connaît maintenant. Mm. Vous remarquez que euh, votre, répertoire commence à se développer. Les gens on commence à, à, vous appeler, à avoir besoin de vous. Les bains peuvent vous, aider à cela. Voilà, on va parler maintenant. Après les bains, vous avez parlé de la barbe. la bague mystique. Mm-hmm. voilà le le fameux Cheikh Omar borom bague bi. Mm-hmm. Cheikh Omar Diop l'homme de la bague mystique. voilà bague euh, jaaro boobu man maa yi ko njëkk a wax. Mm-hmm. ci télé ak rajo. bague jaaro boobu nag jaaro la boo xam ne jaaro bu baax la pour wàllu wërsëg boo bëggee am alal. ak su fekkee ne da nga nekk ak ay nit ci entreprise wala ci kër ñu iñaane la soxora la. intention bu ñu am jëm ci yow day delluwaat ci ñëw moom day jaaro bi day delloowaat lu bon. lu duggee ci nit ñëw euh, delluwaat ci moom. d' accord je traduis ça d' abord sinon je vais oublier on est on est sur le point mystique et je peux me perdre facilement. Mm. donc euh, il dit que il lance un défi à tous les marabouts qu'il est la première personne à avoir parlé de la bague mystique. donc remonté par la télévision ni par la télévision par, par les ni par les, les radios par l'internet par l'internet donc il Je est suis la... la... première personne au Sénégal voilà, voilà c'est c'est la première personne au Sénégal à avoir parlé de la bague mystique et maintenant tout le monde utilise la bague mystique mm. mais il dit que il a dit que si vous utilisez sa bague et que vous êtes quelque part si une personne lambda veut vous faire du mal tout va se retourner contre la personne qui vous veut du ça c'est la première chose la loo xam ne nga dafa am comme yaakaar muy tas yooyu noonu mm. yàlla dina ko delloo d'accord si à chaque fois vous êtes déçu que ça soit mariage par une personne qui veut vous donner de l'argent que ça soit un entretien que ça soit quelqu'un qui vous promet un boulot en tout si vous êtes promu de quelque chose et que vous êtes déçu tout le temps mm. la bague vous débarrasse de ces déceptions journalières waaw mm-hmm. des pour rien du tout. Dans la journée, vous dépensez 100 000, 80 000, 50 000 francs et vous ne vous en rendez même pas compte. Il dit que la bague vous aide à contrôler votre argent, contrôler votre richesse et à limiter vos dépenses. Et que si vous êtes riche et que vous avez des biens, parce que la richesse, ça peut être de l'argent, mais ça peut aussi, être des mm. bien, cest à Chaque fois, vous remarquez des accidents, des effondrements par-ci par-là, perte d'argent, des convocations de police par-ci par-ça, et que vous ne connaissez pas la cause, il dit que la bague mystique peut vous aider à freiner cela. waaw su fekkee nag tamit da nga bëgg nekk koo xam ne danga am alal ci àddina nit ñi xam ne am nga alal ba ñëpp say nawle say morom say famille yëpp xam ne yow mi téye riche changé nga. Hmm. loolu jaarul moo koy def. y a des gens qui y a d'autres a des gens qui veulent que le monde sache qu'ils Il ne par pas de ceux qui veulent, qui veulent se cacher. Il a qui ont de l'argent, mais qui, qui, veulent se cacher. Maintenant, si vous voulez que tout le monde vous connaisse et que tout le monde sache que vous êtes riche, utilisez sa bague. Tout le monde saura que vous êtes riche. Mm -hmm. Voilà, veuillez bien cadrer, s'il vous plaît. Mm -hmm. Voilà, c'est ce que je fu nekk rek. Mhm. bugguloo ku la yàqal ci dara. Mhm. day soog am yàlla na la si dimbali incha allah. d' accord en tout cas cette bague à vous rendre riche et également à vous faire connaître de tous et par tous. Voilà. Euh, nous allons venir maintenant de la ceinture mystique. que vous appelez ndombo. waaw bu fekkee ne am nga ndombo bi. Mm. bu boobaa kenn mun laa liggéey. Mm. mystiquement kenn mun ko. Mm. jinne yi duñ la yàqal. mais est-ce que vous êtes d'accord de montrer la ceinture. Oui, mais vous êtes d'accord de montrer la ceinture ici pas l'habitude de faire ça, quoi. D'accord, c'était juste une question. Est-ce que, oui, voilà, si, même, même si vous le quelque part, mettez-le quelque part, hein. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça la ceinture. Voilà, c'est ça la ceinture mystique. Mais okay. la ceinture, dans les deux catégories. D'accord. Okay. Voilà. Ah, il y a deux façons, quoi. Voilà. Re revenez au bienfait de la ceinture. Oui, vous faites qu'elle est d'accord, vous pouvez lier. Vous faites qu'elle est, vous avez boo ko takkee kenn mënu laa liggéey bu fekkee ne rab la jinne wala yooyu mm. boo ko takkee dina la bàyyi bu mm. fekkee ne nag da nekk koo xam ne da nga ragal dee ci accident mm. boo ko takkee la seetlu en quelque sorte c'est c'est pour la protection voilà ne da nga nekk euh, nga tukki bëgg ñu bisiwaat ak jàmm boo ko amee boo tukkee da nga ñu bisiwaat ci jàmm te sa alal du yàqu nit du la liggéey daal ba sa tasaara sa alal d'accord c'est ce que je disais en quelque sorte la ceinture c'est pour la protection hmm? c'est pour se protéger contre le maraboutage quelle que puisse être la force maléfique, ça ne va pas vous atteindre. Si vous ne voulez pas mourir d'accident, si vous ne voulez pas mourir de par la mer ou bien le feu, si vous ne voulez pas que les personnes détruisent votre richesse, détruisent votre famille, mm-hmm. hmm, en tout cas, ça vous protège contre les accidents, mm-hmm. contre la perte de votre richesse, la dispersion de votre famille, contre également les accidents de voiture, les incendies et tout.

il y a un patient qui se trouve en Italie. Il portait sa ceinture mystique et qu'il avait fait, il était victime d'accident. Donc euh, tous les journaux en Italie en parlaient, hein, donc euh, peut-être qu'on peut le trouver sur Internet. Il dit que quand les sapeurs-pompiers sont venus, bon, ils ont demandé. Bon, bon, voilà, il a appelé les sapeurs-pompiers et quand ces derniers sont venus, il, euh, il, a demandé qui était dans la voiture. Il a dit que c'est moi qui étais dans la voiture. Les sapeurs-pompiers ne l'ont pas cru. Ils ont dit que c'est pas vrai. Et la personne l'a appelé pour le remercier parce que sa ceinture avait marché à merveille. Donc ça, c'est une preuve à l'appui. Voilà. Et d'autres choses sur la ceinture mystique dugg. voilà problème de jinne voilà vous l'avez dit c'est moi qui l'avais oublié. voilà la dugg boo ko takkee nga teg ko sa dënn day génn force. voilà si si si vous avez des des problèmes de jinne des problèmes de possession surtout les les femmes les hommes. et que vous le mettez sur votre poitrine quand vous allez au lit, quand vous vous dormez, mm-hmm. va vous débarrasser automatiquement de votre possession de djinn. soo ko defee si sa ron da voilà lu nar a ñëw ci lu moom lu lu bon. Mm. yooyu da koy xam. d'accord euh, quand vous allez au lit également vous pouvez le mettre mettre, mettre sous votre coussin sous votre oreiller. Mm-hmm. vous allez voir que tout ce que tout ce qui peut vous freiner des maraboutages et autre chose. vous allez le voir en, en rêve. Donc, euh, ça ne va pas vous atteindre. En tout cas, c'est une protection comme un mur mm -hmm. devant vous et le mal. Mm -hmm. Voilà. Et... Voilà, maintenant, on va parler de l'encens. Ah, vous n'avez pas un pot ici mhm. ça c'est l'encens mystique. Mhm, d'accord. Mhm. Ah, lii moom. voilà jooni jooni la moom moom ngay laal léegi gis léegi. voilà il a moom bu fekkee wala dëmm si sa yaram mm-hmm. wala liggéey wala yaakaar wala yooyu lu mm-hmm. bon daal bu fekkee dafa nekk sa yaram mm-hmm. moom bu fekkee ne dafa la dugg bu dee jinne moo la dugg wala ñu liggéey la nga lekk-lekk bu bon moom soo ko naanee soo ko suurooyee sa biir bi day daw donc ça c'est l'encens mystique l'encens à tout faire uh-huh. il l'appelle Dioni Dioni c'est-à-dire tout suite vous le faites tout suite vous voyez le résultat tout suite c'est là uh-huh. c'est pourquoi il l'appelle Dioni Dioni il dit que si vous venez si vous prenez l'encens, mhm. vous l'utilisez. Si, et que si, si, vous avez un djinn en vous, ça sort mhm. automatiquement et ça ne mhm. reviendra plus jamais. Si vous avez un problème de maraboutage, ça va vous guérir. Si vous avez des problèmes de fermeture des problèmes de la poisse vous ne pouvez rien avoir vous allez voir que. ak boobu fekkee da nekk ak sa jëkkër wala ta jabar ya ngeen xuloo mun la nekk jàmm. voilà si vous avez des problèmes voilà si vous ressentez des mauvaises ondes dans votre couple. dans mm. votre ménage. Mm. si vous remarquez que à chaque fois vous avez des problèmes de de votre époux mm-hmm. à chaque fois prenez l'encens. Mm. vous allez ressentir de très bonnes dans votre couple. Mm. Mm. voilà mm. su fekkee ne sa liggéey nit ñi dañ doon ñëw ñu dem wala sa soit sa place soit sa liggéeykaay yooyu ñu dem. soo ko suuree nit ñi dañuy ñëwaat. voilà mettez l'encens dans votre entreprise dans votre boutique. ou bien la où vous travaillez. En tout cas, si vous aviez l'habitude de perdre vos clients pour mmh. rien du tout, mmh. vous allez remarquer que vous récupérez vos clients mmh. avec, grâce à, à l'encens de Cheikh Omar Diop. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw loolu moom mooy njëriñu ci cuuraay bi bari na nag. ay njëriñ. ci efficacité am dafa jéggi dayoo. loolu moom ñu bari même bu fekkee da am ay bëgg këyit. Mm-hmm. wala nga bëgg am fenn dara. nga gis ne am na mystiquement lu ko kale te xam nga ne xel li nga war a def def nga ko. boo jëlee cuuraay bi boo ko de choses qu'il ne peut pas énumérées. Mm-hmm. Mais en tout cas, sachez que si vous avez des problèmes de papier, mm-hmm. si vous voulez avoir des papiers et que vous, vous, vous remarquez que chaque fois, mm-hmm. c'est ça, ça, ça, ne peut pas se faire, prenez l'encens. vous allez remarquer vous obtenez tout ce dont vous avez besoin sur vos demandes de papier, que ce soit à l'étranger, que ce soit à l'ambassade ou bien que ce soit des problèmes de papier au niveau juridique ou bien au niveau administratif. Mhm. Mhm. loolu moom mooy njëriñu cuuraay bi. cuuraay bi moom baax na trop trop moom ku mu munti doon. Mhm. mu xam ne sëriñ ngay liggéey sax même koo xam ne da ngay liggéey affaire marabu sëriñ boo ko jëndee boo ko suurooyee sa eh, rawaan yi wala jinne yi bu fekkee dañ la dañ la kale. loolu da da koy da koy dindi wala sax. ñoom dañ koy jënd di ko utiliser. vous êtes vraiment gentil. il dit mm. que même ses euh, ses collaborateurs ah ses amis de trad ses amis marabouts ils peuvent venir hein. Euh, prendre l'encens ça va les aider à récupérer leur rawhan, je ne sais pas comment, euh, En tout cas, vos, les marabouts, si vous parlez français, vous allez comprendre. Mm. Ah, va vous aider à récupérer vos rawhan et tout là. Mm. En tout cas, il est vraiment gentil. Moi, je n'aurais pas fait la même chose. Mm. En tout cas, les, il peuvent venir et prendre mon sens ça peut les aider sur leur euh, sur leur travail et loolu moom mooy njëriñu tuuti ndax jox naa ko sëriñ mu confirmer ko. donc vous l'avez donné à d'autres marabouts voilà moom confirmé ko mu wax ma ko mhm. jox naa ko keneen koo xam ne dafay liggéey affaire sëriñ ku nekk bis bitim réew mhm. mu ne gis na ci loo xam ne gëj na ko gis depuis vingt ans moom moom su boppam moo ma wax sax ne ma dee ko wax sa mbokk sëriñ yi ñu koy jël ñu koy jël d'accord il a dit qu'il a donné à, à un marabout qui se trouve être à l'étranger qu'il a utilisé et le marabout l'a appelé pour le dire qu'il a vu sur cette transcendance-là quelque chose qu'il n'a pas vu depuis vingt ans et c'est la raison pour laquelle il le dit maintenant aux autres marabouts parce que c'est ce marabout lui-même qu'il a demandé de le dire aux autres pour que les autres l'utilisent voilà donc man comme yàlla def na man awma xolu ko ñaan yooyu voilà loolu moo tax man bëgg naa tamit comme yàlla mayee teraanga ni macha allah mm-hmm. Mm-hmm. ñoom it ñu am ko ndax ñoo bokk liggéey te dañuy sonn ci liggéey bi te xam naa la daj mm-hmm. ma bëgg tamit nit ñi dimbaleen nit ñi tamit ñoom ñu dimbali noonu loolu moo tax que ça ne ça ne pose aucun problème ah lui il n'a pas de problème venez collaborer avec lui il va vous donner l'encens sans aucun problème. Mm. voilà donc loolu moom. na bokk na tamit ak li nga nit da da toog dañuy am ñoo xam ne ci wàllu mm-hmm. soxla yaakaar ñu. Mm-hmm. ñu wax moom ba déggoog moom. d'accord jël suñu kurus toog ñaanal ko. ah d'accord c'est-à-dire si vous êtes à l'extérieur. et que vous ne pouvez pas venir. et que vous n'avez personne ici pour vous représenter. Mm-hmm. appelez-le il peut vous aider. à distance, mhm. de par son chapelet, ah, de, voilà, de par son chapelet, de par d'autres euh, d'autres secrets. Mm. que lui seul sait. Mm. Mais en tout cas, appelez-le à distance, il va vous, aider dans, votre, dans vos besoins. Inch'Allah. Voilà, c'est ça. loolu wax di ko euh, wax nit ñi. pour ñu li ci des yëpp nag bu ñu jokkoo ñun. mën nañu ko gën a yaatal mën nañu ko gën a leeral. di leen gërëm di leen sant bu baax. voilà c'était ça en grosso modo les autres si vous avez d'autres problèmes que vous n'avez pas entendu dans cette vidéo. Mhm. appelez-le et parlez avec lui. donc euh, il va